mat na sëk fa tabaarakallah li ci dolli ay kàddu sax xam na liggéey bi la bokk waaw waaye dégg njàngum xutba bi rek doy na luñ cee leneen luñ cee dolli na moo di rek mu góorgóorlu suñu kem kàttan ci wéetal yàlla suñu borom ci lépp lan ca la ca dolliku mooy dooloo sëriñ bi suñu digganteeg moom sëkk kon loolu mooy la ca dolliku mooy nu gën a xam nag rek ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jaamu yàlla rek moo nu fendi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 noonu loolu rek fi nekk nan góorgóorlu ci suñu diine fonk suñu diine nan góorgóorlu ci fonk suñu taalibe suñu kem kàttan di sant nag naa bu ñu suñu borom ñu nu sëriñ bi sant sëriñ bi mi nu fàggul suñu lépp xalal nu yoon wi xamal nu ko kon naa mën santee suñu borom mi nu boole sëriñ bi noo ngi sant bi ci wàllu yëpp ci lépp bi rek bi ci teegal nag daja dolli ko nag di sotti rek mboolem mbokki jullit yi mboolem mbokki taalibe yi mboolem mbokk yi ñu ngi sant ñëpp xam na ni itti ji itti ji jenn rek la muy ni ñu taxawoo suñu diini rafetale ko sunu taalibe xam na na ci lool rek lañ nekk nañ góorgóorlu bu baax ma ngi sant ñëpp ci rawatina jamono yi weesu ndax eh, xew am na ci waaye fa tabaarakallaahu xam na ne lépp ci sunu borom la bàyyi koo sunu borom fowul yàqul juumul lu mu def na lu mu def ak defar la ndox ndokk nag bañ ko xamee noonu ba dugg ci ak jàmm eh, suñ borom mboyafal ko di sant bu baax nag ba ci taxawaay yi eh, nu ñi ko seq ñëpp kenn ku ne xam nañ ne mi ngi ci kem kattana di ci di ci def wartiifam di gëm di gëm ak sëriñ bi di góorgóorlu bu baax itam suñ suñ diggante gannaaw bu ñu jëfandikoo suñu diine di jëfandikoo ak taalube góorgóorlu nag ci makaarimul axlaaq suñu diggante mooy jikko yu baax yi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 mu mu ngi leen koy liggéeyale jërë ngeen jot suñu ay vidéo da ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube feex Production ngir bës cloche bi bokk ci programme bi national international